juróom ñaar fukk ak benn ñaari léeb yu am maana asalaamaaleykum mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nañu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission bi ñuy wax yoonu njub ci émission bi weesu gisoon nañu ni borom bi yéesu amee woon sañ-sañ bu raw sañ-sañu yonent kese yeesu feesoon na dell ak doole yàlla moo doon kàttanu yàlla gi yor bindu nit looloo taxoon mu mën a dalal ngelaw li di dàq rab yi di faj jàngoro yi ak gumba yi te di dekkal ñi dee sax te jii nag danu bëggoon a jëm kanam ci linjiil ba dégg ni almasi bi yéesu jàngale woon mbooloo ma ci lépp yeesu dafa daan ëmb dëgg gi ci lépp ndaxte lu ëpp ci ñi ko daan topp bëgg xam kàdduk yàlla taxu leen woon a jóg li ñu bëggoon mooy yéesu faj leen tàggale seeni yaram ak feebar waaye bëgguñu woon mu faj seeni ruu ci bàkkaar te it amoon na boroom diine yu doon topp yéesu di ko déglu ngir rekk wut buntu tuumaal ko loolo taxoon yéesu mënul woon wax mbooloo ma dara lu dul ci lépp waaye daana firi lépp yépp ay taalibeem bu wéeteek ñoom waaye ku sa xol dërkiis yàlla du la xamal dëgg gi mukk li yàlla bëgg mooy nga wut dëgg gi ni lu ëpp ci nit ñi gare seen bakkan ci wut alal moom la yàlla wax ci mbind mu sell mi jaarale ko ci yonentam di suleymaan bi mu naan sooy wut dëgg gi ni ñuy wute xaalis di ko wut ni ñuy wute alal kon dinga xam lan mooy ragal yàlla aji sax ji te dinga am xam-xam bu jóge ci yàlla yow miy déglu tey ndax dëgg gi nga gën a fonk xaalis ak jeneen alal ju mu mën a doon ndax kàddug yàlla gu wóor gi mooy li jël place bi gën a am solo ci sa xel ak ci sa xol xëy na xamuloo bu wóor fan la sa xol tollu fa kanam yàlla kon nanga déglu léebu baykat bi génne ci gémmiñu borom bi yeesu nu ngiy jàng ci liñ linjulu Luk saar juróom ñett mbind mi nee na dëkk ak dëkk nit ña di fa jóge jëm ca yéesu ba mbooloo mu bare dajaloo mu wax leen léeb wi dafa amoon baykat bu demoon jiwi bi muy saaw toolam nag lenn ci pepp mi wadd ci kaw yoon wi nit ñi joggi ci picc asamaan lekk ko lépp leneen wadd ci bërëb bu bare ay doj naka la sax rekk daldi wow ndaxte suuf si tooyul woon leneen nag wadd ci biir ay xaaxaam ñu saxandoo xaaxaam ya tànc ko li ci des dal ci suuf su baax sax nangu ba meññ téeméer yoon lu ëpp la mu jiwoon gannaaw loolu yéesu wax ak kàddu dëgër ne déglul bu baax yow mi am ay nopp taalibe yéesu yi laaj ko lu léeb woowu di tekki mu tontu leen ne lii la léebu baykat bi di tekki kàddug yàlla mooy jiw wi ki féete ci yoon wi mooy ki dégg gannaaw gi seytaane dafay ñëw këf kàddu gi ñu def ci xolam ngir mu bañ a gëm te yàlla musal ko ki nekk ci bërëb bu bare ay doj mooy ki dégg kàddu gi ba noppi nangu ko ak mbég waaye wax ji saxul ci moom dina gëm ab diir waaye bu nattu yi agsee mu daldi dàggee ko ki jot jiwu wi ci xaaxaam yi mooy ki dégg kàddu gi waaye nes tuuti soxla yi ak alal ak bànneexi àddina tànc ko ba du àgg ci mat ki jot ci jiwu wi ci suuf su baax si nag mooy ki dégg kàddu gi te denc ko ci xol bu baax bu gore te muñ ba jur njariñ amin ndax jàpp ngeen li léebu baykat bi di tekki ci li wóor léeb bu am maanaa lool la ba taxoon yéesu wax mbooloo ma ak kàddu gu dëgër ne déglul bu baax yow mi am ay nopp ci léebu baykat bi gis nanu jiwu wi ak suuf si jiwu wi lu muy misaal lan la ci borom bi yeesu wax mu ne jiwu wi mu ngi misaal kàddug yàlla gu wóor gi suuf si nag lu muy misaal suuf si xolu nit lay misaal waaw kàddug yàlla dafa mel ni jiw wu baax ndaxte dafay dund te am na doole ngir meññ lu neex ci sa dund waaye xolu nit dafa mel ni suuf si ndaxte mën na dëgër lool nanu xalaat tuuti ci loolu ñaata wirgoy suuf lanu am ci léebu bi gis nanu ni jiwu wadde ci ñeenti wirgoy suuf amoon na pepp mu wadd ci kaw yoon wu dëgër wi am na leneen lu wadd ci bërëb bu bare ay doj am na lu wadd ci biir ay xaaxaam te am na it lu dal ci suuf su baax si ci bu jëkk nag yeesoo ngi doon jàngale ci léeb wi ne ñu bari ci àddina xool bu mel ni yoon wu dëgër wi lañu am seen xol dafa dëgër ni gudorong su pepp mi waddee ci kaw yoon wu dëgër wi luy xew ndax dina sax ba meññ mukk du mën a sax du mën a meññ itam joggi ci rekk la nit ñi di def teppi ci asamaan lekk ko lépp noonu la xolu ñu bari mel ñi am xool bu mel ni suuf su dëgër si ñooy ñi falewul mbindi yonent yi seen aaday maam rekk lañu fonk te naka noonu kàddug yàlla gu dëggu gi du mën a meññ dara ci seeni xol ni pepp mi wadd ci kaw yoon wi dul meññ dara ci lu jëm ci ñaareelu wirgoy suuf si nag yéesu waxoon na ci mbirum bërëb bu bare ay doj te néew suuf suuf si bare ay doj dafay misaal xolu nit ki gëstu tuuti rekk ci mbind mu sell mi nangu ko ci saa si ak mbég waaye du yàgg ndaxte kàddug yàlla gi jàppul bu baax ci moom dina gëm ab diir waaye bu nattu yi agsee mbaa ñu fitnaal ko ndax kàddug dëgg gi mu dàggeeku ci saasi noonu lañu bari mel kàddug yàlla gi amul reen yu xóot ci seeni xol ndaxte ngërëmu nit a leen gënal ngërëmul yàlla bu ko defee kàddug yàlla gi du leen jëriñ dara ni pepp mi wadd ci bërëb bu bare ay doj dul jëriñ dara gannaaw loolu nag gis nanu suuf si fees ak xaaxaam luy xew ak pepp mi wadd ci biiri xaaxaam ndax dina mën a meññ déedéet xaaxaam yee koy tànc suuf si am xaaxaam moom dafay misaal xolu ki dégg kàddug yàlla gi waaye soxlay àddina ak naxi alal ak bëgge solu ko tànc kàddu gi ba du jariñ dara lu bari ci doomi aadama yi xol yu mel ni suuf su fees ak xaaxaam lañu am ñi mel noonu dañuy xalaat ne waaw benn bés dinaa tàmbale gëstu ci mbind yonent yi bu ma amee jot dinaa déglu kàddug yàlla incha allah waaye seytaane xam na bu baax ne doo am jot mukk du la bàyyi nga am jot sax ndaxte bés bu nekk dinga am ay jafe-jafe yuy noot sa xol ak sa xel te it dinga war a lekk liggéey wut xaalis dinga dem marché jaay jënd jàng nelaw ak nangam ak nangam sa dund dafay fees dell ak ay soxla ba tax doo am jot mukk ngir gëstu ba xam dëggu yàlla gi te kon benn bés dee dina ñëw ni milip ci sa kaw tabal la laaxira bés boobu ngay xam lan mooy dëgg gi ak lan mooy ay fen waaye xam dëgg gi nga faalewul woon ci sa dund du la ñetti dara ndaxte bu boobaa dina fekk réccu wees ndaxte fekk nanga nga ba noppi ci lu jëm ci ñeenteelu wirgoy suuf si nag gis nanu ne jiwu wi baykat bi ji ci suuf su baax dafa jóg sax di focci ay gub mu àntu ba mat téeméer lu ëpp li mu ji woon suuf si jot ci jiwu wi ba def ay gub nag day misaal ki dégg kàddug yàlla te denc ko ci xol bu baax bu gore te meññ njub ak dund jeex noonu lay mel ci képp ku nangu kàdduk yàlla ak xol bu woyof kàddug yàlla dina yeesalaat sa xol ba jox la sañ-sañu dëkk ci kërug yàlla ba abadan ci tënk loolu mooy li yeesu bëggoon a jàngale ci léebu baykat bi kàddug yàlla dafa mel ni jiwu wu baax wi sa xol mel ni suuf su dëgër si lu war a xew bala ñuy mën a ji aw jiwu ci suuf su dëgër faaw ñu gàbb ko baykat yi xam nañu loolu naka noonu xol bu neex yàlla mooy xol bu toj te mokk te jekk ngir nangu kàddug yàlla muy jiw wu baax wi xol bu neex yàlla mooy xol bu nangu kàddoom ci woyaf moom la mbind mu sell mi wax bi mu naan ku nekk war nga farlu ci déglu di yéex a wax moo tax nangu leen ci woyaf kàddu gi leen yàlla sol te mën leen a musal di dëddu bépp sobe ak coxor gi daj àjjina sa xol nag yow fu mu toll ndax am nga xol bu woyof te jekk ngir nangu li yàlla wax ci mbind mu sell mi jaarale ko ci ay yonentam ndax kàddug yàllaa ngi sax ci sa biir xol wala boog ndax am nga xol bu mel ni bërëb bu bare ay doj te fees ak xaaxaam léegi nag nanu jëm kanam ngir déglu beneen léeb bu yeesu waxoon mbooloo ma mooy léebu jëmb bi mbind mi nee na noonu yéesu dégtal leen beneen léeb ne nguurug yàlla aji kawe ji dafa mel ni nit ku ji jiw wu baax ci toolam waaye bi nit ñi di nelaw noonam ñëw ji jëmb ci biir dugub ji daldi dem bi dugub ji saxee nag jëmb bi saxaale ak moom noonu surgay boroom kër gi ñëw ci moom ne ko góor gi xanaa jiwuloo woon jiwu wu baax ci sab tol fu jëmb bi jóge nag mu tontu leen ne noona ko def surga ne ko ndax nu dem dindi ji ko waaye mu tontu leen ne déedéet ngir bañ a buddiwaale dugub ji bu ngeen koy dindi bàyyi leen noonu ñoom ñaar ñu màgg ba ngóob ma jot bu ngóob ma jotee nag dinaa wax ñi koy góob jëkk leen a dindi jëmb bi takk ko ay say lakk ko waaye ngeen semb dugub ji ci samay sàq ci kaw loolu yéesu bàyyi mbooloo ma ñu dugg ca kër ga taalibeem yi ñëw ci moom ne ko firil nu léebu jëmb bi sax ci tool bi noonu yéesu tontu leen ne doomu nit ki maanaam almasi bi moom ci boppam mooy ji jiw bu baax bi àddina mooy tool bi ñi bokk ci nguur yàlla ñooy jiw bu baax wi ñu bokk ci iblis ñooy jëmb bi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 ñu jëp ñi dinañu leer ni jant bi ci seen nguuruk baay déglul bu baax yow mi am ay nopp amin noonu ci léebu jëmb bi dégg nañu ni boroom bi yéesu méngale àddina si ak toolu dugub baykat bi dafay misaal almasi bi jiw bu baax wi mooy kàdduk yàlla gi génn ci gémmiñu almasi bi dugub ji sax ci tool bi day misaal ñi bokk ci yàlla ci kaw seen ngëm ci xibaar bu baaxu almasi bi noon bi ji jëmb bi ci biir dugub ji mooy iblis jëmb bi mooy ñi bokkul ci yàlla ndaxte nanguwuñu xibaaru almasi bi ngóob mi mooy bésu penc ba dugub ji ñu semb ci sàq mi day misaal ñi am sañ-sañu dund ci jataayu yàlla ba faaw waaye jëmb bi ñu dajale te lakk ko mooy missaal ñi ñu nara taabal safara su dul fay mukk yow miy déglu tey nan nga mel ni dugub ci walla ni jëmb bi bésu penc baa ngi ñëw nag ate baa ngi ci bunt bi ndax am nga kóolute fa kanamu bésu ate ba déglul kon li yeesu almasi bi wax ci mbirum bés boobu mu ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gudul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund amin jërëjëf ci déglu bi njàng mi ñëw bu neexee yàlla dinanu jëm kanam ci linjil ngir gis ni yéesu dundale lu ëpp juróomi junniy góor ci juróomi mburoog ñaari jën kese su fekkee ne am na lu ngeen bëgga laaj ci li nu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub pp 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te leeral leen ci lépp li ngeen dégg tey ndaxte borom bi yeesu nee na déglul bu baax yow mi am ay nopp